يسر للمنال دار برولي من غاد لي ما بعد كل ولي لغاد البدر وسودا من زهزه seetaan am nañu mbégte lool fas yéene ànd ak yéen indil leen li ñu leen jëlalee ci ubbite juma Montagne Sainte nekk ci Libreville di capitalu euh, Gabon imagine leen jàkkaar lool mooy Libreville dëkk bi moom la nasaraan bi tànnoon ci 1895 ginnaaw bi mu jëlee ku tedd ki xadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba ci Mbàkke Bari ci Jolof indi ko Ndar atte ko ci conseil privé indi ko Ndakaaru embarqué ko ci ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre 1895 fii lañu ko indi di Libreville fi ñu jàkkaar lool bi bato bi egsee li mooy passerelle bi nga xamante ni ku tedd ki xadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba bi mu wàccee fii la jaar ba egsi ci suuf fi ñu jàkkaar lool mooy fi nga xamante ni fi la njëkk a julli ñaari rakka ci Gabon te magasin bi fi nekkoon ñu doon ko wax magasin Malaika léegi benn cabinet dentaire moo fi nekk juma ji ñu jàkkaar lool ñu di ko wax mosquée central mooy barab bi nga xamante ni ku tedd ki xadim rasul Cheikh Ahmadou Bamba fii la daan jullee jullee juróom tey sunu borom dogal ñu tabax fii juma fi ñu jàkkaar lool di mémorial bu Léon Mba mi njëkk a doon président wu Gabon bi mu faatoo ci 1967 fii ñu ko suul moom lañ doon wax les anciens cimetières kon sëriñ bi bi mu ñëwee fii la dëkkoon wala fii lañu ko e, téyewoon woon fii nag dafa nekkoon sëg yoo xamante ni bu guddee waa yuux yi nga xamante ni néew yi ñu fi suul dañu ko yuuxu wax nañu ni daf daan lëjël sëriñ bi ba daf daan bàyyi ko foofu ñëw fii ñu jàkkaar lool di montagne sainte fii nga xamante ni fi la ñu taxawaloon sëriñ bi marale ko ak garab ngir fetal ko téeméeri at ak fukki at ak juróom-ñaar kon sunu boroom faye na fi sëriñ Touba juma ji ñu jàkkaar lool ci barab bi nga xamante ni tam fi la ñu gasoon yeer moomee nga xamante ni mooy pax mu gudd te defoon sawaraak lu nekk ca suuf te Cheikh Abdoul Ahad Mbacké wax ni ba ko ci dugalee eh, jëmm jàpp ci ay waggam ni ko demal ci sab liggéey ba mu geesoo muy soxna su tedd sa di waajuram di soxna jaara ma féeru poroxaan kon e, Libreville ni ngeen ko gisee nii fii la xew-xew bi war a xewe te mooy ubbite jumaay montagne sainte kon vol bi nga xamante ni bii moo njëkk a egg si Libreville bàyyi ko Sénégal bokki pèlerin yi bokki taalibe yi gis ngeen leen noonu ñu génn ci aéroport Léon Mba ak journaliste yi nga xamante ni ñoo bàyyi ko Sénégal ngir ñëw couvrir si événement boobu nga xamante ni événement historique la kon fii la bokk yi tàmbalee egg si ci bisu talaata bi ci Libreville di capitalu euh, Gabon alxames ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre ci la Serigne Mamor Mbakke bu Cheikh Mourtada mbake ak kilifa yi mu àndal bàyyi ko Sénégal nag egsi fi nga xamante ni bii mooy aéroport mba jaar salon d'honneur kon dañuy ànd ak yéen rek won leen tertu bi nga xamante ni euh, bokki taalibe yi tertu nañu ko Serigne Mamor ak kilifa yi nga xamante ni. ñoom la àndaloon te ñu ràññee ci euh, sëriñ Mamor mbake moom sëriñ Masamba mbake waaye ñu ràññee ci itam sëriñ Sidi Mbakke moom Cheikh Abdoul Khader Mbakke sëriñ Modou Mbakke moom Cheikh Abdoul Ahad Mbakke sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdoul Akram sëriñ Moustapha moom Cheikh Mahamad Lamine Baara euh, sëriñ Cheikh Aliou moom sëriñ Aliou Mbakke moom sëriñ Modou euh, Moustapha waaye. Euh, kilifa yi diine yi nga xamante ni bii mooy ëtti diine yi nekk Sénégal itam waa Niassène tew si nañu waa Thiénaba tew si nañu euh, waa euh, Kunti yu di waa Ndiassane ñoom itam teew si nañu waa Tiwaawan itam tew si nañu kon kër yi diine yëpp ñoo ànd ak Serigne Mamor ngir ñëw teewe si ubbikaay ubbite jumaay montagne sainte kon ni ngeen ko gisee ci image yi fii la sëriñ bi egsee ci aéroport bi mbooloo mi bari ci lool bokkoon na ci itam eh, ëtti kër sëriñ Touba yi sëriñ Cheikh Khady Mbacke yebal na doomam sëriñ Mahmadan sëriñ eh, Modou Makhtar moom sëriñ Cheikh Awa Balla teewoon na El Hadji Maam Thierno moom sëriñ Cheikh Awa Balla yebaloon na doomam sëriñ Basirou ak délégation yu baree baree bari ànd itam nag ak rakki sëriñ Mamor yi di njabootu Euh, Serigne Mourtada Mbacké ci egsi bi ñu ràññee ci Cheikh Abdoul Ahad Mbacké kon mbooloo mu bari ñoo teew ci aéroport bi ngir teeru si Serigne Mamor ajuma di fanweeri fan ci weeru novembre nag ni ngeen ko gisee montagne sainte dañu ko baare tali fa jaar loolu yëpp ay tant la bokki jullit bokki taalibe yi ñi bàyyi ko woon ci diaspora bi bàyyi ko France ñi bàyyi ko Cameroun ak fenn fu nekk Guinée équatoriale fenn fu nekk bokki taalibe bàyyi ko fa ñëw teew si fi nga xamante ni mooy montagne sainte. ñu tàmbalee ci Cheikh Amar ak ndax ku bu ñu nee Cheikh Amar sax taalibe yi xamante ngeen xam ngeen ne buñ ko waxee bëggatu leen sax ñu tudd leen ndax yéen li leen tax def yàlla rek la damay wax ne Cheikh Amar ku ku xam xaalis la waaye bëggu ko. xam xaalis xaalis jumtuwaay la du jëmmukaay ki ko xam mooy ki koy def mu ko war a def ki ko bëgg nag mooy ki defe na jëmukaay la cheikh loolu dalu ko li ci des yéen ñi nekk ay taalibe li ngeen am lu ngeen am moo nekk ci lépp waaye teewul seen yéene ak seen jëf dañu ci kon ñu ngi leen di sant bu loolu jeexee nag ñu nuyu bu baax kilifa yi fi teew tàmbalee ko ci eh, ki nga xam ne moo fa teewal président Ali Bongo Euh, mu yàlli ab bar ak sunu xarit sëñ euh, ana daayiman aqul law kaana jami al aima mislak la aataqid an al islam lam tuxaawi hadihi al mashakil alli tuxaawimu an shukran lak euh, moom xal ñi koy sant bu baax mooy imam Ismaïl yàgg nañ ko xam tase nañ fu bari ci biti mu di fa taxawal lislaam bu baax ginnaaw bi ñu nuyu gouverneur bi c'est le gouverneur ñu ngi lay nuyu merci beaucoup ñu ngi nuyu bu baax ambassadeur di Mali kooku tamit ku ne xam na ne bu fi ñëwee wàcc na ak bu Turquie bala ñu bu boobaa nag balaa booba it ñu nuyu nag ki nga xam ne moo fi teewar président Macky Sall di Aly ni mu ko waxee léegi e, xam naa dañ ko fee yebal waaye xëy na Macky sax fooguma ne xamee woon na ko noonu waaye nit ku bëgg lu baax lu ne day am dana def loo xam ne sax dafa mel ne yàlla moo ko ciy orienté xëy na Macky ku ko xam-xam ne ku bëgg lu baax la ku bëgg lu rafet la kon bu yabalee Ali mu doon sëtu Samba bi defe naa ne ci fii ñi nga xam ne histoire bu rëy fi nekk defe naa ne ñuy conférence borom xam-xam ñu àndal danañ ci wax ci kanam ngi lay gërëm bu baax di gërëm soxna Fatou Gaye di gërëm it suñu conseil moom itam di gërëm nag ki nga xam ne moo leen fi nekkal muy euh, Mbaba Ndiaye kooku tamit ñu ngi koy gërëm taxaw na taxawaay yu rafet boobu ba léegi noppaluwul fu ne ma ngi fay dugg amul benn. mën a dugg ba def inauguration bi jafe woon na lool ndax li ñuy wax ni foo sànni mbattu mu tag keroog kenn xaju fa kon fii la Ali Akbar di secrétaire général adjoint bu présidence de la république bu Gabon ànd ak Serigne Mamor Mbacké ngir dagg ruban bi nga xamante ni bii mooy symboliser ouverture officielle bu mosquée Cheikh Ahmadou Bamba bi nekk montagne sainte ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يقول الحق سبحانه وتعالى من كم تنزيله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ويقول تعالى وعلى الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدوا به لا يشركون به شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الخاسرون ايها الاخوه إن العالم في وقتنا المعاصر يعيش في مرتبط بمختلف الطرق يعاني من صراعات مقتدمة بين الثقافات والحضارات المتباينة لذا نرى أن ناقوس القطر يعلن يعلن بعدل ليس بمستقيم إذا كان العالم في نفس هذه الوحدة ومن بين تلك الصراع وهي بالأخطر ci Libreville capitale bu Gabon mu doonoon seen mbokkum taalibe liggéeyaakoonu borom daarul muuti Mbaye Guèye ma di leen sant bu baax a baax di leen gërëm jërë jëf yasara lil munaaladaadi barwani man raadani ma ban kulli wali li xaadal badr

عسى قلبي أهل الجنباء لله قد وصلت عند قلوى وسانني أما يجور البلوى كتابتي قبل الألبوم خمر أو دواء فاسخات يسال الجميل عند المولكات ما سألني عن جالب ربك الكبير دعوساتها مد لي الأنواع عند الظلمات وظالمين من كفاني صدمات